asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi ci wàccaay bis bu mag bisub diine bisub lislaam ginnaaw bi ndigal li bàyyi ko ci xalifa général kulu murit cheikh mahamadul muntaxa mbàkke yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér sëriñ ahmadul muxtaar mbàkke xalifa cheikh mahamadul moustapha ak mbooleem njaboot ak cheikh mahamadul moustapha gépp ci kilifteefuk sëriñ moustapha mbàkke mohammed ak mbooleem njaboot ak sëriñ mbàkke soxna gépp wàcc fan kër ak kër goo xamante ni yàgg nañ ci ndigal mu di kër Serigne Ciré Lo ci kan Serigne Serif ñu feggoog rakkam ju tedd ji nga xam ni moo di sëriñ Moustapha Bassirou Lo yor kàddoog njaboot ak mbooleem njaboot ak Serigne Sànn gépp moo tax ñu nekk fii ci kër ki nga xam ne mooy kër Serigne Amar sàmb ngir lan ngir woote woote bisu màggaluk sànn googu juróomi fan ci weeru koor lii sabab bi nag mooy kenn ku ne xam na ni Serigne Ciré Lo Sànn moo dalan seexul xaddiim ca sànn waaye ba mu fay ñëw fas mu waroon di fas Serigne Amar Samb sëriñ amaar Samb moo ko indi woon foofee ca sànn moo tax nag ñu feggoog soxna moomi Mbàkke moom sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke ngir woote màggal googee ngir moom muy seere ci bis boobee ak daje boobee nga xamante ni ma nga amoon ca sànn bis bi nga xam ne moom la dëgmal di bisu màggalu Sanusi bis boobee nga xam ne bi sëñ Touba nekkee ci géej gi di liggéeyal boromam ñu bëgg a ñibbisi daa bind ñaan boromam ne ko na nga def bu ma delloo dellu googee na doon tex ñëpp ëdduna ak àllaaxira te buñ gis sawara mukk na ñëpp texe icaal rujuu yi ila qawmi saadatana wal tak fi naa yow ma jam jamhil xalqi niiraana loolu sëñ Tuubaa façon ci bu ñibbisee bi sama borom dogalee mu ñibbisi nag ci 1902 jaar ndakaaru jaar ndar bi mu ñëwee Louga nag la ñëw foofee ci Sanosi waaye kéemtaan gu rëy feeñ ci ndax bi mu ñëwee ba Louga war a jëm si ci réew mi tubaab bi bàyyi ko ñëpp ñëw kilifa yëpp ñëw xool yëpp sedd kenn ku nekk xeemeem sëñ tubaa wàcc fa yow keroog bi borom Tuubaa génnee lim jëkk wax ñu dégg ko dane Amar Samb sëriñ Amar la sëriñ Tuubaa jëkk laajte kàddu googu lañ jëkk dégg ñu jokk jolaate ko di ko jokk jolaate ci taalibeem nga ak baaxam nga fekk ma nga ma fa sori toog yoru fasam bi mu ñëwee sëriñ mu ne ko an indaale nga sa daaba mu ne ko indaale naa ko de mu ne ko moom la sama borom wax fas woowee dafa sëñ Amar sambu moom la sëñ Tuubaa fab ca war sëñ Amar indi sëñ Tuubaa sànn loolu moo waral tey solos ñu indi jataay bi ci barab bi ci turu soxna si soxna moom it Mbakke ñu ñaan suñu borom mu yàgg suñu kanam aju turu soxna Fatimatu mi nga xam ne moom lañ fi xoolee jëmi sëñ Amar moom it mu yàgg ci sunu kanam ak mboolem sëti sëñ Amar yëpp ak mboolem sëti sëriñ Siri yi ci ñoom ñoom ñooñu la ñuy wax ci turu sëriñ Sirif ak soxna soxna Seynabu Lo ak soxna Njaaye Lo ak sëñ Cheikh Diop Assawalo ak njabootu soxna Mariama Lo ñooñu ñëpp ñu ngi wax ci seen tur ngir fàttali bis bu tedd boobu di juróomi fan ci koor gi di ko yëgal nag njabootu sëñ Tuubaa gépp ginnaaw buñ ci amee ndigal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamadou Mokhtar waaye kii di suñu kilifa nag di sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mouhamed Mbacke di ko yëgal buntu kër sëriñ Touba yëpp bay woon genn buntu kër Cheikh Abdoulaye sëriñ Sidi Mbacke noo ko yëgal bu baax noo ngi ko yëgal bu baax di ko yëgal njabootu Cheikh Abdoulaye gépp di ko yëgal tam sëriñ Dam Atta ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima di ko yëgal tam sëriñ Abo Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Fadi di ko yëgal tam sëriñ Cheikh Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Mbacke di ko yëgal tam sëriñ Mamour Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada di ko yëgal itam sëriñ Cheikh Salihu Mbacke moom Cheikh Salih di ko yëgal itam Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Khadir ak mboolem njabootuk Cheikh Abdou Khadir di ko yëgal itam Serigne Mouhamadul Habib ak mboolem eh, njabootuk Cheikh Abdoulahi borom dër bi waaye di ko yëgal soxna Boussa Mbacke mm, ak mboolem njabootuk Serigne Abdou Samad di ko yëgal itam mboolem sëti Serigne Touba yëpp ak mboolem Cheikh Serigne yëpp bàyyiwun ñenn di ko yëgal itam Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Sohaybu Mbacke ak mboolem waa kër Serigne bu ak mbokki mbokki Serigne Touba yëpp mboolem njabootuk Mamor jaara mboolem njabootug maam Cerno Birahim mboolem njabootug maam Cheikh Anta mboolem njabootug sëñ Masamba mboolem njabootug sëñ Balla Coro mboolem njabootug sëñ Cheikh Absa mboolem njabootug eh, eh, eh, képp ku sant Mbàkke bokk ci maam Maram noo ngi lay woo ci bis boobu di ci woo mboolem Cheikh yi sëñ Tuubaa yëpp di ci woo mboolem daayira yi sëñ Tuubaa yëpp bàyyiwun benn tudd yëpp di ci woo tam mboolem daara yi yi ñu tàmbali njàngum alxuraan mi def ko addi sëñ Tuubaa ak sëñ Siré ak sëñ Amar Samb mi nga xam ne moom lañ jagleel bis bii dégg ci koo yëgal tam mboolem daayira xasida yëpp bàyyiwun ci ñan di woo nag ñi nga xam ne ay wëlëre woon yu sëcc sëñ Siré Lo ak sëñ Amar lu demee nekk njabootuk sëñ Mamour Baran gi te ak njabootam a ngi ni teew ak njabootuk sëñ Jiri Wadaan ñoom ñëpp ak yeneen kilifa yoo xam ne ñenn ñu ci ne ak sëñ Siré dañoo doon benn ak waa kër Cheikh Ibrahima Sarr ak waa kër sëñ Lumbi ak ñeneen ak ñeneen ñoo ngi leen di fàttali bis boobu daxan daal bisub lislaam la bisub xéewal la bisub ngëneel la bis la boo xam ne sëñ Touba ko defal boppam te ba mu fa ñëwee it daa waxoon Siré ana loola xamal barab bi sëriñ Siré ne ko Mbàkke xanaa sax baax rek mu ne ko liggéey bii matee damaa yéene woon sippiku ju ci sama dëkk ba ci Touba waaye sunu borom xamal ma ne ma da nga xanaa da ngaa fàtte jaayante gi ne Touba doo fa mën a delluwaat bokkut ci benn béréb rek moo la attan ci kaw suuf te boobu joti woo fa mooy ci sang ba Muhammadu Rasulullahi te foofu joti woo fa na ma ñaan sama borom ne ko teg ma dimbal te seetal ma kon foofu danaa fa mën a sippiku nee na suñ borom tànnal ma sànn si loolu moo tax ma ñëw foofu kon sëñ Sirilo am na ci cër bu rëy waaye sëñ Amari benn cër gënu cër sëñ Touba <coughs> eh, <coughs> te sëñ te booba sëñ Amari ko attan moo ko jëlee Louga andi ko sànn si kon noo woo ñëpp di di ñaan képp ku fa teew ci barkeb xaadimu rasul barkeb soxna si soxna moo minatumi ci barkeb Cheikh Modou Fadlu Fadlu waajuram wa barke sëñ Sire barke sëñ Amar Samb aaju yëpp fajo ci tuuru sëriñ Cheikh Samb Bachir mi nga xam ne mooy xalifab a Cheikh Amar tey radiallahu anhu ak Cheikh Ibrahima Samb mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Modou ak mboolem njabootuk sëñ Amar Samb yëpp waaye di leen nuyu ci tuuru soxna Muminatu Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadinil Fadal mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ak sun maam ju tedd ji nga xam ne moom lañ fi xoole jëmmi a Cheikh Amar Samb muy soxna matu Samb di waajur Sëñ Moustapha mii Cheikh Sëñ Cheikh Samb Bachir yabal fi ay jëwriñam ñu teewal ko ci jataay bi woote bis bii nga xam ne mooy juróomi fan ci weeru koor mooy bis bi nga xam ne moom la sëriñ bu mag bi gane ji woon taalibeem bu mag boobee di sëriñ Siréloo Sànn sëriñ Naasiru Diin ñu gën koo xam ci sëñ Cyril Lo Sànna mu baax moomee ñu ngi koy woote it nag di ci woo mboolem taalibe yi di ci woo di ci woo mboolem mbokk yi mboolem xarit yi mboolem am di jàmm yi yëpp ñii leen ci woo di leen ci di ci sàkku seen di leen ci tatagal bu baax a baax xam ne bisub xéewal la bisub njariñ la bisub jullit yëpp la bisub taalibe yëpp la la sëñ Mbàkke Buso waxoon ci moom ne sëñ Cyril paggu paggu teefub sëriñ Tuubaa la paggu teefub sëriñ Tuubaa la boo xam ne sëñ tu suñ borom moo baaxe sëñ tubaa ci lu ëpp ci mbiri mbiri sëñ tubaa lu ëpp ci mbiri mbirim daan def sëñ Siré la ko daan la ko daan defloo bal kaana xaqan uddatan li cheikh fii jullil umur bayit boobu bu sëñ baagi bu seemoon rek day mel ne doy na sëkk kon ñu ngi koy woote bu baax a baax a baax man sëñ Daam Sow Baay Faalu Kalsaan dama ñëw ci ndigalul lifa Kalsaan di sëñ Cheikh Gueye ma ciy woo taalibe yëpp di ci woo mbokk yi ñeeñu yëpp béyuñu kenn daayira yi mënumaa lim yëpp mais daayira yi kalsaan yëpp te sëñ Modou Gueye Samba Takku jiite ko ca Dakar ñu ngi leen ciy woo ña nekk Italie ñu ngi leen ciy woo suñ mbokk ya nekk njurki ñu ngi leen ciy woo di ci woo ne ñëpp ak Kër Paate maa ngi ciy woo ñëpp béyuñu kenn. suñ kàddu ñu ngi koy béral ci waa daayira Taysiroul Massir bi nga xam ne si mooy daayira Taysiroul Massir bi jiite kër Serigne Sirlo Sànn suñu kilifa gu tedd gi toog di sëñ Moustapha Bachir Lo sëriñ bi nee na mi ngi woo waa daayira Tachirul Asir bi nga xam ne si ñoo féete ci biir réew mi mi ngi leen ni bu baax a baax liggéey bi dañ ko daan defee ñu defee ko du ko raw ak daayira Tachirul Asir yi nga xam si ñoo ne ci biir réew ak bitim réew ah mi ngi leen soññ bu baax ci liggéey bi di ñaan suñu borom tabaraka wa taala bis boobu bi ñaan ku ca teew suñu borom faj sa aajo saahiran wa baatinan ah, départ bi ñu ko defee Daaru Xudóos kër sëriñ Bachir Lo ñeenti fan ci weeru koor wa di woote Sanocé gii ci digalu sëñ Moustapha Lo na mi ngi woo ñëpp ci bis bii góor jigéen mag ak ndaw ñu woo ñëpp ci bisu Sanocé juróom fani weeru koor maa ngi woo sama mbokk jigéen yi ak daayira waaja Sanocé ñoo ngi leen ci woo bu baax nañ ci taxaw bu baax maa ngi woo jigéen ñëpp nañ ñëw takku laxasaay nekk ci waañ bi niñ ko daan defee nañ ko yokk bu baax nekk ci waañ bi nekk ci bernde yi def ko ba mu sell joxe ko ci joxe bu rafet loolu la sëñ Moustapha mi bëgg. nee na mi ngi koy yëgal ñëpp rek bàyyiwu ma kenn bàyyiwu ñenn di ko yëgal mboolem ku nekk ci dëkk bi ñëpp rek muy góor muy jigéen di ko yëgal waa kër Cheikh ñëpp rek ci soppe Cheikh Moustapha yi ci góor ñi di ko yëgal sëñ Maam Góor Sëy jigéen ñi di ko yëgal soxna ma awaloo ñu koy yëgal ñëpp rek bàyyiwuñu kenn. woote baa ngi noonu muy bis bi nga xam ni moom lañuy ñuy fàttaliku ngan nga sëriñ Touba gane woon Serigne Sidy ca sànn juróomi fan ci weeru koor ca woore fa weeru koor wi ba koor ga yegg loolu yi moo tax Serigne Serif ci turu Serigne Moustapha Bassir Lo ak mboolem njaboot ak sëriñ Sidy gépp nee na ñoo ngi koy fàttali ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn. teg gi nga xam ni moom lañ jàkkaarloo nii. mooy teggi seexu naa seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul waroon ca fas wa jóge Louga dem sànn ca fas wa nga xamante mooy fasu Serigne Amar Samb woowu ca am tudd Fadlulaahi moo tax ñu ñëw fii tey ci kër gi kër Serigne Amar sàmb ak njabootam njaboot ak Serigne Siréloo gépp àndandoo ñëw fii fàttaliku kóllëre gu am solo gu nga xam ni moo doxoon ci ñaari kilifa yooyu le looloo tax Serigne Moustapha nee na mi ngi koy fàttali ñëpp mbooleem daayira yi mbooleem xarit yi mbooleem soppe yi wala rek am di jàmm yi bàyyiwut kenn ñi nga xam ne nag ni sànn mi ngi nekk ci département bu Kébémer looloo taxitam itam ne mi ngi ci woo mbooleem dëkk yi nga xam ni ñoo wër Kébémer gépp dëkk yi wër sànn bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn lépp nag di am ci ndigal ak kilifteefu Serigne Moustapha Mbacke Mohamed yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér. kon ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn juróomi fan ci weeru koor rendez ba sànn la. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu